yaa himmata sayqi uhdalilna bi hada almahdari wal taxti fii bi na nasrat taxti lana bi safar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ñu ngi ñëwaat ak yéen ci waxtaan wi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee mu jëm ci lenn ci taalibe yi nga xam ne ci taalibe Baay Ñas yi dañoo am ak tarxiis ci oote gi ñuy ooteel seen mbokk taalibe ci palaasu baay ñenn ci ñoom tamit di ooteel seen bopp na ñoom ñooy ñi doon nu baay tey yi nga xam ne moom lañ jëf jël mu nekk ay sukkandikukaay ci ñoom ne moom la ñuy jël def ko ay dalaa il mooy ay ndëgër ndëgërlaay yi nga xam ne moom lañuy leeralee ne baay moo joxoñ ab xalifaam ci kanamam wëlis Seyda Ali Cissé wala doomam ñu samp ak xilaafa goo xam ne wala ak ndono goo xam ne ndono baatin la jël ay wax waxi Baye ñas yi nga xam ne waxam la déformé wax yi sosal Baye ci ginnaawam oote ay ay nafsu xilaafa woote ay ay xilaafa ci ginnaaw Baye di oote ay martabatu xilaafa di oote ay euh, zillu xilaafa yooyu yëpp laa wax ne dara doo wut ci dëgg ay sos la ñu sos gannaaw Baye ndi bàyyi wax dafa leer ku yàlla hubbi sa bëti xool ba nga janoog dëgg ba dëgg ji xool lan ne ca yëpp yàlla ba janoog mbir yi da nga xam ne loolu ay sos la du dëgg bëri na ci ay seen ay wax loo xam ne dañuy jël waxi pii yàlla bi di ko firee ak waxi nit àddina yi dégg-dégg àddina yi li ko waral mooy yàlla ci boppam ku ko nar tiriyaande wala nga nar ko euh, wuruj moom mooy dëpp sa xol bi dëpp sa xel mi nga janoog euh, euh, saytaane mu lay jox ay mbir di la wax yu nag wax yu googu mu lay wax yu nag wala mu lay jox ilham xam-xam yooyu ngay jëlee ci saytaane daf daf da koy nirale doo wax mukk sawab doo wax lu dëppoog péeb bi li ngay wax yëpp ay nirale lay doon nirale te loolu du wut yàlla donc loolu moo tax nag ñu ñëw pour jël benn ci abiyaat yi wéyi bàyyi nga xam ne wax la yoo xam ne dañ koo jël déformé ko lu ci mel ni li nga xam ne mooy jaxaltu ko yaa xayral anaamin safira wa kullu zamanin qad araaka mujira wa wa bi kafayka rub ribhul xalqi turran wa kusuruhu wa xayruka lam yulfo ladayhi naqira googu bàyyi wax nga xam ne bàyyi moo ko waxal boppam ñu déglu Baye Niass mi nga xam ne tey moo wax wax ji ci làmmiñu wolof kan moo def ambassadeur euh, yonent bi ak moom kan moo ko def ambassadeur nañ leen ko déglu bisimilah. wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jeex na léegi. Baye mu ne gàmmu gi jeex na léegi. léegi ñu ngi leen di xëy. léegi ñu ngi ñuy xëy. te ñu ngi leen di ñaanal yàlla. te ci ñuy ñaanal yàlla yi. ñu ngi leen di yaakaaral. ñu ngi leen di yaakaaral itam. mais yàlla nangu na seen guddi gi. na seen guddi gi yàlla nangu na ko. alhamdulilah. yéen ci taxoon ngeen daje. teew waaye mu ne ci taxoon ñu daje. teew na fi teew boo xam ne néew na bu mu ko teewee. teew na fi teew boo xam ne néew na bu mu koy teewee. te jublu jëlu mooy faj seen aajo. te tedd du fi jëlee lu mooy ñu faj fay haajo. yonent bi jubluwut ci teewam gi maanaam lu mooy yéen seen haajo faju. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teewam gi jubluwut ci dara lu mooy jot yàlla faj suñu haajo yi. yonent bi mooy buntab yàlla. ndax yonent bi mooy buntab yàlla. ku dikkal yàlla ci buntab yonent doo dugg. ku dikkal yàlla ci lu bu bi wax ak yéen mooy buntab yonent bi ku dikkal yonent ci lu dul buntab. jaam bu bi. toog di wax ak yéen mooy buntab yàlla bi. buntab yàlla bi buntab yàlla bi buntab yàlla mooy yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam. ku ko dikkal. ku ko dikkal. te ci moom doo dugg. te ci moom doo dugg. loolu loolu ngëneelal yàlla la ku ko neex rek la koy jox. yal na yàlla nangu. alhamdulilah dégg ngeen bàyyi ni mu ko waxee. ci wolof ndax lii du sama làmmiñ làmmiñu baay la baay dégg ngeen mu ne guddik bi gii ni ci yonentu bi feeñee loolu dëggal na ne yënantu daan na feeñ ci moom Seexu Tijaan daan na feeñ ci moom euh, euh, euh, yàlla ci boppam feeñu waayam daan na feeñ ci moom ak jëmmi Baay Ñas ji ndax képp ku dëkk Kawlax yaroo Kawlax màggee Kawlax xam nga ne këll daan xale yi daan nañ dem di di di teg ci ne bàyyi tey day weex wala day xonq ndax set gi bàyyi setal boppam ci zahir ak ci baatin ñëpp xam nañ ne bàyyi ñax danaan jékki-jékki xonq coy bañ xam ne tey seexut yàlla taxawee wala mu jékki-jékki weex tàll bañ xam ne tey yonent yàlla moom salaa salaam moo feeñ ci palap bi dem ba nga xam ne dina ñu dem ba yàgg nga gis bàyyi ñas ci boppam ñu gis ko bàyyi ci boppam ñu gis ko ñu de léegoo léeg ñu dem ba yàgg ñu gis bàyyi duñ xam kan lay nuróol loolu xam nga ne loolu leneen la loola tegtale na nag jëmmi bàyyi ji ci boppam dafay feeñal feeñuwaayu gaay lisaanu Baay Ñas ci boppam encore dafay feeñal feeñuwaayu gaay donc loolu nag wax jooju Baay waxal boppam ne yonent yàlla Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam feeñal gi feeñ gi feeñ ci suñ guddi bi gi néew na bu mu ko feeñee mu ne waaye yonent bii mooy buntab yàlla dégg ko de mooy buntab yàlla ku dikkalul yàlla ci buntab yonentu doo joteeg yàlla dara xam nga lii leer na li du sama du samay wax lii nag moom la bàyyi wax ne jaxaltuka yaa xayral anamin safira parce que ki nga xam ne moom moo fal nit ki ambassadeur tey suñ ko jëlee masalan tey misaal ci président Macky Sall tey boo demee ci beneen réew mu jël ambassadeur teg ko fa sëriñ bi gis nga consulat boobu lépp lu présidence digle dig dogal ci ci ndigalu président moom lay moom lay véhiculer moom lay defar moom lay def kon moom bu fekkee ne bàyyi ci boppam euh, moom moo taxaw wax ne moom moo def yonent bi ambassadeur loolu ci xel nee neexut a dégg mënuñ koo dégg ci sunna dëppoowut te bàyyi du wax mukk lu uteeg sunna ndax moo wax ne saa saara xayru naa si surtu war a aw wa in xalla yow man fal masiru ba baxeedoo kon du teggi tànkam fu ko du fu ko yonentu tegut fu ko yonentu tegut fu yonentu teg tànkam fa la koy teg kon nag fii ngay xamee ne kon feeñu waayu zahir yam doon feeñ da xonqo ko ñu la ko weex ci ngay déggee ne kon lisaan yi am na lisaan bu taxaw wax joxoñ ndax suñ su ma juumul ci boppam sax am na nañ dégluwaat bàyyi fu mu bàyyi di waxee ne euh, maa ngi leen di euh, ndokkeel ndax li ma yor lisaanu péyeb yàlla bi moo tax déglu leen lisaanu péyeb yàlla bi kon xam ngeen ne bàyyi daan na waxee ci lisaanu péyeb yàlla bi nañ ko déglu ci bés bi nga xam ne sedd nañ ko suñ borom ci bés bi nga xam ne sedd nañ ko suñ borom man maa ngi leen di wax ci làmmiñu boobu ci lamiñu pay boobu. ne maa ngi leen di ndokkeel mi ngi leen yàlla. da dégg nga kon pour ma mën a leeral li may wax lisaan bii nag lisaan bii moo wax jaxaal tukka yaa xayra anaamin safira léegi nag ke wax ci gàmmu gi doon leeral kooku dafay leeral wax ji ne yonent bi salaa salaam mooy buntab yàlla ku dëkkalul yàlla ci buntab yonent bi doo jotee dara. léegi nag bàyyi mu ne njaam su xeebu sii mooy buntab yonent bi kooku mooy raaytu rasulullahi na sabi anna nii safirun lahu fil kaa inaati fil kaa inaati muqallasu yaa kon xam nga kii wax ji moo lay xamal ne bàyyi yonent bi salaa salaam moo ko def muy ambassadeur am ku ne gis na bàyyi jeexiti zahiram ak jeexiti baati baatinam xàmmeehuñ li dox ësal ak li dox ëbët lisaani xàmmeehuñ leen feeñuwaay yi xàmmeewuñ leen xàmmeewuñ taxawaay moo tax ñu sañ a ooteel keneen gannaaw baay mais bu xamoon baay démb xam baay tey duñ sosal baay ginnaawam loolu moo tax man ma ne tey damay ñëw pour indil leen jaxaal tokko yaa xayran anaamin safira nga xam ne moom la ñuy daliloo danañ leen indil nag yeneen dalail yi nga xam ne moom lañ jël yëpp layee ko amul fenn ci mbindi baay yi fu baay taxaw wax ne yonent yàlla man baay damay dañ may doon amut fi ko kam wax cité ne ko leeral na ginnaaw Seydi Xalil Cissé la wax njàng Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop jàng na leetar ba ñëpp dégg nañ ko bu bu ngeen dof dofloo yéen taalibe yi ngeen déglu waxi araab yi bàyyi déglu waxi olof yi bàyyi ngeen am benn waay bu dof boo xam ne jàngut araab jàngut dara amul xam-xam ñeen ay waay sax laay wax yoo xam ne jànguñ dara xamuñ dara jël ay waxi bàyyi ne xammeewuñ benn benn benn benn jànguñ dara ci luxa liñ jot a xam sax ci bayti baay yi dañ leen koy tekkil ba pare ñu wëlbatiku bëgg déformé ay waxi baay lii waxi bàyyi la boo xam ne wolof la ku bëgg a dégg yàlla bëgg a dégg dëgg bëgg sa bët bi xëppeeku na nga déglu baay nañ dégluwaat fii li may bëgg a wax ni nga xam ne sos yi sosal baay ginnaawam nañ dégluwaat fii baay wax dañoo waroon a ittiwoo yàlla suñ dund bii dara war ci woon nekk soxla lu dul ittiwoo yàlla di ko dund di ko tudd di ko fàttaliku léegi nag bu ñu demee ba càggante ñëw ba gaar gaar gaar ñu lii bàyyi ko wax de nañ ko déglu après ba gaar gaar gaar ñu bañ xittiwoo leneen lu dul yàlla mu ne bu boobaa nag nañ ko déglu nañ déglu lii du ma ko wax sax di ko àggale nañ déglu bàyyi mu waxal ko boppam. waaye nañuy fàttaliku yàlla. nañuy fàttaliku yàlla. li ñu waroon. li ñu waroon. mooy du ñu am benn soxla. mooy du ñu am benn soxla. lu may dëkk rek di fàttaliku yàlla daay man bañ. lu may dëkk di fàttaliku yàlla daay man bañ koo fàtte. di ko topp daay man bañ koo mooy. di topp yàlla moomu daay man bañ koo mooy. di ko sant daay man. di sant yàlla moomu daay man. du ñu wetti xéewalam. te du ñu wetti mukk xéewalam. su fekkee càggan gaar na nag. su fekkee nag càggan gaar na nag. bañ soxla woo yeneen. bañ soxla woo yeneen nag. ba dugg ci yeneen. ba dugg ci yeneen. waaye naa amee jamono ñëw fàttaliku delluwaat ci moom. waaye kon nag nay amee jamono ñu fàttaliku yàlla moomu delluwaat ci moom. de bu ñuy dellu si nag. bu ñuy dellu si nag. ñu ngi mel ni jaam bu dawoon di dellu si ci sangam. ñu ngi mel ni jaam bu si genn rëy. du dellu nag genn rëy. dellu benn puukare. lu dellu see benn puukare. day rek taxaw taxaw fi kanam sangam. day ñëw rek taxaw ci kanam sang bi. torox ci kanamam. torox ci kanamam. nekk léegi. ci maqaama boobu lañ mu ngi noonu mu ngi noonu lii man lii leer na bàyyi waxoon wax na ko gis ngeen ko dégg ngeen ko nee na gaar gaar bii bu demee nag bu leen am ak rëy dëpp dellu ci bàyyi bu leen ko bu leen ko rëy parce que bàyyi moo ko wax de su nga demee ba jàmbi nag war a mu ne dafa mel ni jàmbu jàmbu dawoon buy dellu ci boromam nag day day day ak gépp ak torox mu ne waaye nag booy yeel si bul ànd ak rëy kon na ngeen dellu ci bàyyi. fekk maa ngi dund dinaa dimbale taalibe Baay xee leen wax leen ne leen nañ góorgóorlu ñu dellu ci Baay Ñas mooy dëgg ñu dem siyaare ji doomi Baay ñu dem ñàkk gi métti gi taalibe Baay nekkee dara waralu ko loolu ñàkkaa jox doomi Baay hadiya dara waralu ko loolu ñàkka liggéeyal Baay coono gu métti gi nekkee dara waralu ko loolu ñàkk liggéeyal Baay dagg nañ leen ci xadara yàlla bi taalibe Baay boo gisoon bu ñàkk ba da daan man am ay tasarufaat yu nu daan def da daan am ay jeexit yàlla yu daan feeñ ci moom ku ko tooñaan mu wan la boppam am na ci ñenn ñu ci des nag ba tey ñu dellu ci bàyyi ñoom moom ña nga ma nga ci ñoom waaye seet leen ci gaa yi nga xam ne dañuy oote ay xilaafa ay nasu xilaafa doo gis ci ñoom mukk benn jeexiti yàlla doo leen duñu am soxla mukk mu sotti soxla bu ñu am danañ ci daw bay ba a léegi-léeg dem nañ sa ba léegi ay sangoo suufu su sangoo ay sunguf ak raayo ay sunguf moo leen gënal toog yor seen kurus di ci kar duñ jàng taluñ jàng salaatu faatiha jàng ay bayti bàyyi la ñuy def pour mën a ut ay lay yuñ sampee seen xadara bi duñ sikkar duñ jàngaar alquran taluñ ko sax donc loolu laa bëgg ñu bàyyi ci xel taalibe bàyyi bu nekkaan ci quartier ñëpp dañuy xam ne taalibe bàyyi ma nga fa ku xamoon njàqare ci moom nga daan dem mu faj ko ku leen laal xam ne laal nga laalaake ku leen gis xam ne kii taalibe bàyyi la mbóot dañ ko daan ñogal daawuñ ko waxtaanee ci mbedd li xale yi di foyee nii mag ñi xamoon nañ ko démb te dañ ko noppee woon dara luñ fi sos lu bees newu fi kenn ni ci ñuy ootee indiwutu benn xaqaayiq bu bees dara lañ fa sosut tus waxi kese nañ boo ko ñun ñu dellu ci bàyyi ndax bàyyi mooy dëgg maa ngi leen gërëm di leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf